dañoo ne daf ko violé daf ko teg ñaari pistolet à la à la à la tempe juge bi ne man loolu d'accord ci amul. à la fin de la fin on nous dit non violé wu ko et il écope d'une d'une d'une condamnation. mais dañu war a féliciter pour entorse aux dañu war a féliciter justice sénégalaise xam nga dañu war a féliciter justice sénégalaise benn benn dañ ne woon kenn du ko jugé ñaar. ñu ne suñ ko jugé mais jugé ngeen dans quelles conditions. non peu importe l' état waaye. c' était un procès expéditif ah. xam nga moom loo xam nga loolu du procès expéditif xam nga lu tax du procès expéditif. si c' était xaaral ma expliqué la xam nga man ministre de la justice la du ma juge du ma procureur mais damay suivre procédure yëpp nag Sénégal di xool ndax la justice a été bien distribuée su ma gisee parax parax yi wala mauvaise distribution de la justice wala ñu bëgg a salfaañe ay droits de la défense attention damay intervenir. parce que je ne me soucie pas des cas mais je me soucie de bonne distribution de la justice revenons à parce que parfois il faut être factuel ñu bañ a nekk ci ay principes généraux yi factuel affaire bi kañ la woon du mars 2021 mhm. mars 2021 la woon instruction bi kañ lañ ko clôturer ba mu am ordinance de renvoi bi six mois six mois derrière 18 janvier 2023 ordonnance bi nga doon lire sax 18 janvier 2023 deux ans deux ans d'instruction ñëw dañ koo parax paraxee deux ans d'instruction gis naa yeneen yu gën gaaw mais kooku kenn du ko wax parce que garaaw benn boo ko yaakaar la boo ko écrit loolu garaaw te bosam moo gën gaaw sax mais fii deux ans d'instruction bi ñu paree xamuloo juge bi dafa renvoyé devant la chambre criminelle yaa ko wax sànq ñëpp xam ni le procès aurait pu se tenir quinze jours après en matière def et c'est quinze jours après les avocats de l'accusé ont attaqué l'ordonnance devant la chambre d'accusation. Tous les juristes savent que la saisine de la chambre d'accusation n'empêche pas la programmation du procès. Juge Sénégal tribunal de grande instance jàpp ne ñoom duñu duñu duñu programmer procès bi dañuy xaar ba chambre d'accusation décidé su chambre d'accusation annulé ordonnance procès bi dootul amati su rejeté demande avocat yi buy sa am ça a trois mois. chambre d'accusation rejeté seen recours ñu ne kon kay léegi jeex na xanaa dañuy programmer procès bi programme ba ñu parce que avocat accusé bi toujours dañu pourvoir en cassation devant la cour suprême contre l'ordonnance de la chambre d'accusation ñëpp a xam ne juriste yi juriste boo laaj fii wax ko le recours est manifestement irrecevable parce que chambre d'accusation wax na ba pare juge rek moo ci desoon mais bi ko cour suprême du traité juge ci dañuy xaar finalement may mun a kañ lañ jugé affaire bi fin mai fin mai lañ ko jugé mars 2021 la affaire bi am ordonnance de renvoi bi am na depuis janvier 2023 tous les recours ont suspendu l'affaire ñu jugé ko mai 2023 lu tax procès bi keroog mu gaaw noonu mais parce que ki ñu jugé nekku fa non contumace l'accusé nee na nekku fa jotul convocation te avocat bi ñëw taxaw nañu. ñëw taxaw lu ñuy ñëw non ces avocats nee nañu. taxaw seen client. jotul convocation on n'a pas on n'a pas apporté la lumière. sur cette histoire de réception de la convocation non doo ñëw mu jeex rek. su boobaa sax dañ naan mais année avocats yi ñu ne jotuñu ko. juge bi moo permettre ces avocats ñu ñëw. oui mais dañuy ñëw c'est-à-dire ñëw mooy yënga soo ñëwee yënga ñëpp suivre dañu péripéties yi nga xamante ni justice bi mi ko doon def pour jox ko ay ay ay convocation ak yooyu loolu bi mu amee mais ñu jugé parce que ki ñu war a jugé ñëwul mais ils l'ont jugé par contumace deux ans sur deux ans donc mënuñu wax affaire u parax par contre lenn rek dëgg la justice moom saa yu saa yu ñu kii war a jugé nekk politicien moom nekk candidat à la présidentielle surtout un des favoris moom dañ naan moom dañ la bëgg a écarter. mais xam moo ñu jaaxal loolu moom. xam moo ñu xam nga lan moo xaw a doy waar. instruction bi yàgg na mu am beaucoup de gens qui ont été entendus mais à la fin de la fin mu am ñoo xam ne euh, wax nañu seen implication ci ci ci ci mbir mi euh, kenn convoqué leen kenn entendre leen jour procès bi y a eu deux ou trois témoins lañu lañu la ñu woo non yow yaa wax deux trois témoins la ñu si deux ou trois témoins bariwuñu. <laughs> de. Euh, nga ni deux trois kii moo ñëw euh, Aïssata Ba moo ñëw témoigner la masseuse la la fille Ngom ñëw témoigner Alfousseni Gaye euh, capitaine Touré quatre témoins ñoo ñëw alors que am na ñeneen ñoo xam ne nee nañu ñoom ñoo togg dossier bi tudd nañu leen ci. suñu cité Maïmouna Ndour Faye témoin jour bi ñëwul luñ ko mën a. tudd nañ leen ci ñëw lu ñu def. non boo nekkee un témoin fekk la ngay toog a boo nekkee un témoin capital pour faire la lumière sur cette affaire là non de la mais dañ la dañ dañ war a requérir sa présence. mais ñu requérir ko ñëw lu ñuy def. ah mais est-ce que dañuy ñëw pour ce que ñi nga xam ne euh, même le juge ne les a pas entendus. am na ñoo xam ne tey dañ leen di tuddu naan ñoom ñoo togg dossier bi voilà ak Sidi Sidi Mohamed Mbaye cinq témoins kenn kenn kenn kenn déggu kenn déggu leen mais mais mais il faut comprendre euh, li ngay wax ni c'est très important mooy li ñuy wax l'imprévisibilité d'une audience qui entraîne l'imprévisibilité des journaux gis nga justice su xasee ba dem juge bi ci boppam am na yoo xam ne du ko maîtriser mun na am ci audience bi procureur bi am na yoo xam ne du ko maîtriser parce qu'il est parti au procès ah le procureur avocat am na yoo xam ne dañ ko maîtriser mise la justice moom yu bëri moom mënatu ko maîtriser parce que audience moo demee noonu c'est-à-dire doo xam ce que révèle l'audience l'audience c'est une c'est un théâtre de vérité c'est un jeu d'acteur de vérité pour pour la manifestation de la vérité lépp mun a am mais ñun su ñëwee ministère de la justice ngay xool procès ma joxe exemple Mame Mbaye Niang euh, ak euh, Ousmane Sonko affaire de diffamation ñu rendre décision bi le parquet qui fait appel loolu mooy parquet bi peut-être comptable ci décision bi nga xam ne rendre rendre nañ ko le parquet il ne représente par le le le le le ministère public l'État mais loolu mooy État ci boppam ministre la justice président de la République sax procès mun na am. nga am loo xam ne daf lay bett ak loo xamante ne sax yow bëggoon mu demee ah, noonu. mais mënoo ci dara. décision bi bett leen. mënoo ci dara def appel. nga def appel vous maintenez vous maintenez la la la la la la sanction pécuniaire mais on on on on augmente. Euh, nu mu tudd le le le le. c'est le nombre de de de mois. ñu yóbbu jëlee ko euh, trois mois yóbbu ko six mois. ko wàññi. ah mënoon nañu ko wàññiwaat. def ko un mois. waaw mais quand même c'est l'imprévisibilité. waaw imprévisibilité mais quand même c'est c'est bizarre quoi. justice c'est-à-dire on fait un appel. et puis attention avant même ñuy agsi appel boobu ñaata lañ ko renvoyé dossier bi ñaata lañ ko renvoyé. trois trois fois. quinze jours un mois. Ah. renvoi sur renvoi. Ah. mais pourquoi. parce que pourquoi pourquoi on a renvoyé. parce que c'est les avocats qui demandent le c'est le respect des droits de la défense la sacralisation des droits de la défense. ñoo demandé renvoi première fois juge bi accordé leen deuxième fois accordé troisième fois accordé ba nga xamante ne dañ dañ dañ mënatuñu renvoyer donc le système sénégalais le système judiciaire sénégalais il est transparent le juge il est indépendant. mais mais mais kenn contrôlé wu mais dans cette affaire. la justice elle est forte dans cette affaire suite bi. moo tax il faut rendre hommage à la mais Maïmouna je vais conclure par ça affaire bi mais justice mënoon na bañ am. ñu toog les conditions de justice ne sont pas réunies ñu toog ay magistrats. wala ngeen am juge bu bañ a dossier. très bien non on n'a jamais eu ce problème. il y a beaucoup de juges qui voulaient prendre l'affaire beaucoup. ñi ñi désigné d'accord dossier bi kenn xëccoo ko woon de. non non il y avait pas de bousculade évidemment parce que ah. aussi c'est normal. mais à tous les niveaux il y a des juges qui étaient qui voulaient prendre l'affaire et d'autres qui ne voulaient loolu de ça arrive et une décision aussi chargée du point de vue politique c'est normal mu am ñoo xamante ne dañ naan man bëgguma dugg ci affaire politique loolu moom c'est ok il y a aucun problème donc en, réalité la première chose qu'il faut faire c'est rendre hommage à la justice sénégalaise de rendre la hommage justice a été debout non waxuma juge de d'abord je parle de la justice qui a été debout l'état qui a été debout et ébranlé on a menacé les juges on a insulté les on a intimidé les juges bundu xatal wone seen photo jabar seen photo doom yuuxu leen saaga leen menacé de mort la justice a été debout le procès a été organisé et le procès ce qui est intéressant pour moi ministre de la justice c'est qu'on respecte les normes d'un procès équitable avocat yi laaj ñu jox leen ko amul parax paraxe su amee mais mais dafa am. une bonne distribution de la justice te loolu la ñu gis fii. te loolu nag man damay rendre hommage justice xam lan moo manqué rendre hommage aussi xam lan moo manqué dans cette affaire là. Euh, waroon euh, la justice ne s' est pas préoccupée de savoir comment est ce que cette affaire a été montée. pour ce que ça nous a coûté. c' est à dire fan la c' est à dire waroon leeraluñu mbir mi fan la jóge nan la sokkee leerul ci suñu ci suñu bopp parce que dañoo ne menace de mort euh, euh, viol euh, vidéo à la fin de la fin loolu yëpp amul leeral lu ñu fan la mbir mi jóge pour ce que ça nous a coûté en termes d'énergie économie stabilité est-ce que waruñu woon aussi au-delà d'incriminer Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ñu pousser l'investigation leeral xool ndax dafa am ñoo xam ne dañoo comploter contre euh, ces individus là et puis ñooñu aussi ñu répondre de leur responsabilité parce que ils ont porté du tort au pays est-ce que yow ministre la justice est-ce que di nga garantir à Ousmane Sonko et à Ndeye Khady le droit d'ester en justice contre ces gens-là et d'obtenir réparation bu fekkee ne ñoom jàpp nañ ne am na ñoo xam ne ñoom ñoo la comploté contre ñoom et même et, et s'il y a des ils ont même comploté contre l'État ils ont même comploté contre le peuple sénégalais parce que deux ans réew mi mu ngi nekk ci anormalité à cause de ce de ce de ce dossier-là est-ce que war woon ci prérogative justice parquet ak yow mi ko jiite nga pousser l'investigation mbir mi leer bu fekkee ne dañ dañ ko monter ñi ko monter ñu répondre de leur de leur de leur de leur faits et gestes. bu fekkee ne monté ñu ko ñu xam ne monté wu ñu ko. non xam nga justice du justicier il faut pas confondre. mais yow yaa waroon nekk le justicier. non non man du ma non man du ma justicier moi je ne suis pas dans les procédures je ne juge pas les faits je n'apprécie pas je ne délivre pas de verdict moi je suis soucieux de la bonne distribution de la justice point léegi day war a xam benn affaire euh, Maïmouna la la justice juge des faits. fee yi ñu ko indil la mais du dem seeti fee ne non fee yi ngeen may doyul indiwaat ma yeneen fee non c'est des faits d'abord. mais loolu moo ah, tax ñuy def instruction non non non avant y a l'enquête. waaw loolu moo tax ñuy non bu ñu paree enquête loolu moo tax ñuy dem. instruction mais très bien mais loolu élaguer il fallait élaguer très très large. je vois que yow léegi da nga ay droit <laughs> <laughs> ñu defee enquête circonscrire nañu parce que enquête boobu il faut mu am périmètre mënoo dem di tii ba réer sax dootoo xam ne def. y a des y dafa am ku porte plainte ki porte plante fee yi mu indi ci ngay démarrer départ comme base après na nga élargir da ngay def enquête préliminaire soo paree enquête préliminaire nga def instruction xoolaat dossier bi déglu ay témoins togg ko ba mu jël après na nga renvoyer juge bi tamit sur cette base te juge bi mun na dem sax au-delà de l'instruction le jour de l'audience. mais c'est ça que je dis il devait aller au-delà. mais ànd nañ ci mais su fekkee da nga organiser procès boo xam ne ñaari partie la ku nekk ñëw war a wax. juge bi mënu am ay éléments kooku ñëwul loo ci man moom mënoon na ñëw ñu acquitté ko mënoon na ñëw ñu acquitté ko su ñëwoon ñu ko feey lii la lii lañ la lii lañ la reproché mu démontrer que feey taxawul amul moom nee na complot démontrer les éléments du complot génnee par des investigations qu'il aura fait faire ou bien que la justice aura fait nan la complot bi të të tëxale mais su boobaa mun nañ ko waaye yow ñëwoo sax taxawoo juge bi acquitté la ci yenn yi par disqualifié viol bi en en corruption de l'argent te ñëwoo imagine soo ñëwoon loolu moo tax justice dañ ko war a sargal dañ ko war a respecté waaye nga nekk citoyen ci réew te da ngaa bëgg nekk président de la république justice woo la ñu la def am kat lu ñu la tuumaal ndax dëgg la ndaxte ki ko wax kat gëmuñu ko gëmuñu ko de yow it gëmuñu la te yow vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que le tribunal établisse votre culpabilité waaye nag ñoo la ko ñaan ñëwal rek nga layoo nga la ñëwal soo layoo ñu dinañu xam fu dëgg gi féete ñëwal muy ñëwuma désobéissance civile gëmuma justice bi mais foofu may wun an ngay demee daan da ngay def ay élément wu complot yooyu ki ñu jugé ñëwul boycotter justice su boobaa nag justice tam am fayda retenir affaire bi comme dañ ko retenir am seen fulla am seen fayda xam ne dañ fi taxawal yoon taxawal fi état jugé waaye nag attention jugé tamit sans haine jugé sans comment dire volonté de représailles parce que xam nga mënu nga nekk juge convoqué nit mu ñëw mu ñëw ma faale wu la nga mere ko juge yi mere ko dañu jël seen sang-froid xool affaire bi de façon professionnelle doxal ko première bi ñu ñëwee dañu renvoyé ñu ñëwaat ñu renvoyé waat waaye soo renvoyé renvoyé ki ngay jugé man ñëwuma faale wu ma leen. non benn renvoi lañ ci def. waaw bi ñu fixé bi ñu fixé procès bi non benn renvoi lañ def. non dañuy ñëw def renvoi fixé procès bi. waaw après ñu ñëw renvoyé. waaw donc bi ñëwee ñu renvoyé def ko bi ñu paree suñu parax parax yi dañuy délibéré le même jour ñu dañuy def délibéré. ndaxte lañ fa déglu loolu tamit ñun juge il faut ñu xoolaat ko bu baax togg ko ak léegi donc fii la justice a été faite de façon